ñëw li ñu fi indi bokk ci inauguration bi nga xamante rek ñu di amal moom di Pawaali Pawaali maa ngi di fay jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di leen di ko ñaanal ñëpp ñi ñu seetaan di nuyu Sénégalais yi leen ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg macha allah. Bouthio maa ngi lay siyaar bàyyi kam tawféex waaw waaw suñu diggante ñu nag Omar Chevaux waaw diggante ñaari taalibe la avant tout parce que Omar moom ku ne xam na ne Omar bu Wally Ballago Seck la te ñun lépp lu taq ci Wally taq na ci ñun ndax mooy suñu njiit moom la ñu liggéeyal boot ñu donc kon lépp lu ko laal rek te mu jege ko te ñun ñu xam ne jege na ko ñun loolu dañ koy bëgg Omar nag ñoo bokk dëkk Pikine macha allah donc mu nekk euh, koo xam ni. zéro faute ku bëgg boppam la nangoo liggéey gëm yàlla teg ci responsable donc loolu mooy critères yi ñu boole. voilà ba pare ñu du jàppante te amul tricherie donc ku ne yëg sa morom donc liens yooyu yëpp ñu bu ñu boolee donc mënuñu dul mu xewle ñu teew ci macha allah voilà. mais loolu moom lu ñu war a pousse mu jëm kanam la parce que tamit moo gën moo gënoon jeunes yi yaa fu ci dugg ci ay détails yoo xam ne kuñ ci fekk dañu xeet voilà parce que boo doonee ndaw focus ci liggéey pour jàppale sa yeneen moromu jeunes yi donc loolu mun ci ci saluer ko ba pare pousse la au lieu di la xëcc ngay delloo gannaaw ndax boo delloo gannaaw ni ngay jëmbale lépp dañuy dellu gannaaw mm-hmm. donc kon yàlla yàlla na leen yàlla jàppale.

bien sûr voilà ndax ki xewle mën naa yëkkatiwaale waaw ndax ji na ko lu jaral mu xewle mu ñëw du ci xaalis du ci am am du ci yooyu yëpp mais yëg-yëg la ak ànd ak nit te muy dëgg sans waxante dëgg bañ a àndanti ndax succès ni rien donc ki xewle muy Omar mën naa yëkkatiwaale ndax euh, li nga xam ne moom moo gis nga gis nga gis nga Amar tooñ nga ma nag ndax wallaay daw naa interview ba son mais bi ma nee salaamaaleykum gis ngeen seen fit bi tëf la def ndax xam naa du ma rëcc waaw et puis parce que cas cas fi mu toll nii man mënu ma cee résoudre lu bari de waaw d'accord voilà cas bi ni ma ko gisee mooy ni ko sénégalais yi jotee mm-hmm. et que je vois pas li cas bi sax mooy li sénégalais yi di interpréter. Mhm. te egg si wul biir Ramadan man loolu laa jàppee cas parce que sénégalais ñu ngi wax Ramadan dafa am problème mais attendez bët je pense que amul rido am déet à boo xefee da ngay gis li xew. Mhm. donc nit ñi ñu ngi seetaan suñuy spectacle gis nañ ambiance bi ne ci kaw scène bi waxtaan bi kafoore bi ñun déjà bu ko ñuy seetaan ci kaw scène bi ñun ñëpp dañuy ree rek. Mhm. ñun ñëpp dañuy ree rek. man maa ngi xool Benjamin Faye muy fecc maa ngi fecc fële wala kii ngi fecc fële wala kii jëlu neex ma ma gàññ ñun harmonie li ñuy dundee ci kaw scène bi donc kon gisuma problème bi ñuy wax wala problème boo amee boobu ñun waaram daan yëguñu ko donc sénégalais yi ñoo créé seen problème rek di ko di ko wax wax dëgg fa yàlla egsee guñ ci ñun te yàlla bu mu egsee mais seen ak ginnaaw seen bokkul de li xew très bien li li xew ci gannaaw seen voilà jërëjëf yow yow bien li xew ci gannaaw seen man maa ngi ci kaw seen bi li gannaaw seen bi xam nga ma ne ci kaw seen bi di wàcc di vérifier li ne ci gannaaw seen bi man li ne ci kaw seen bi laa mën a wax. comprendre naa la de kon da ngay wax lu leer. ma tontu la je pense que ay kilifa ñoo nekk rampante dépassé nañ temps wu tricherie dépassé nañu que kenn mënut a bañ a kenn nañu temps wu tricherie ñun ñëpp ay kilifa lañ ku ci nekk. soo yorul ay nit di leen fay yor nga ay famille donc je pense que ni dépassé nañ temps tricherie on vit dans l'harmonie di kaf di foo di ree li ngeen gis noonu ci ko seen bi loolu mooy dëgg dëggantaan ramdaan parce que ramdaan déjà ci ko sanc sanc ko ci ay caaxaan mu mu coon bala ko sekk yàlla na ko yàlla yërëm ci mm. ko sanc sanc ko ci ay caaxaan donc dooy caaxaan moo ko jaxase wala ay ay nit ñi dañuy yaakaar non non non amul benn problème mais nag yàlla def na ku boot bukki xaj boobu la donc c' est normal puisque ñoo nekk numéro un c' est normal gars yi di ñu euh, kii ay bagage noonu voilà. waaw kon jërëjëf dégg naa ko. alors euh, naka lay déggee tey euh, li nga xamante dañ koy wax quand même wax que ni yéen da ngeen di ànd mais bëggante bi war ci seen diggante def leen ko mooy maanaam solidarité. Mm-hmm. ndax gis nañu ku mel ne Amadou Badiane sorte bi nga xam ne def na ko wax na li ñu waaw mm-hmm. ah, mais loolu nit ñi ñoo moo ko mm-hmm. bis mu ko seetaanee naa ci wax. bu ñu ma seetaanee nag après bu ngeen ma interrogé nag ma mën ci wax mais actuellement nii sax amaguñ ko. d'accord mais Amady nee na dañ ko jiñ sàcc mais hmm. gisul kenn ci waaraam daan génn défendre ko. waaw léegi Amady nee dañ ko dañ ko jiñ sàcc te gisul waaraam daan kenn défendre ko man de Amady Badiane mi ma xam Sakura Wali c'est quelqu'un de responsable quelqu'un de respectueux quelqu'un qui sait ce qu'il veut te nekk koo xam ne tamit dafa boot Ramdaan. donc je pense que ni bu ñuy wax ay détails ba koy sànni ci ëmb di mhm. bu mu ko déggee dina dafay ree trop mhm. voilà ki ko ki ko wax nag nit Sénégal moom tuuma yàgg na fi rawatina ku boot bu ki xaj dafay lay bëwu mhm. l'essentiel ku koy séen ci gàll ku koy séentu ci gàllu xaj doo ko ca fekk man xam naa ëmadi te sénégalais aussi peut-être fa bari ay ñoo xam ne dañuy xalaat li leen neex ñu ko interpréter noonu loolu ñoom la engagé mais ëmadi c'est un homme digne c'est un homme responsable koo xam ne ku ma tegaloon kaamil ma dóor ci sama loxo ne c'est quelqu'un de responsable. Mhm. voilà laa ko gisee. message bi moom ma ko de. waaw mais xam nga tax. parce que man wallahi azim yàlla bu ma génn fii sama TikTok dama ko tëj. y a presque six mois. sama Instagram duggutuma ci. Mhm. WhatsApp laa te sama WhatsApp am na yoo xam ne des trucs indésirables yoo xam ne kenn mënu ma ko envoyé. bu ma envoyé dama koy bale donk problème bi billahi wallahi wa taala lu ci bëri dañ ma koy informé voilà donc ci bëri fii nga ma ko fi laa ko yëgee li nga xam ne ko Adama moom dafa yëkkati ay kàddu ne ko na bàyyi tudd turam ndax saa su tuddee dañuy jàpp ni moom moo leen yónni ku ci mel ni euh, Baye Sall ku ci mel ni Omaro kii ni mel le fait que mu lancé ko message boobu daf ko lancé message boobu jot na message donc kon je ko lancé dégg na ko ko waxtaan à l'amiable loolu moom sama a néew. waaw Joe Wally Seck ak Sidy Diop li nga xamante ni jamono ji askanu Sénégal ñëpp a ngi ciy muy diggante boo xamante ni soo gis la ñu wax mais euh, li ñu nemmeeku mooy saa su nekk ñu bari dañu wax que ni mooy lancé pic yi ndax kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko foofu ca bopp ne euh, moom moo jur Sidy Diop jur jàpp mu jur coow alors est-ce que jàpp nga ni Wally sekk ak artiste bu mu doon ak fi mu toll ci réew mi war na lancé pic yu mel noonu rawatina nag di yëngalaat suuf gis-gis boobu yéen a ko am ou bien sénégalais yoo ko am. Mm-hmm. Hmm? je demande gis-gis boobu yéen journaliste yi yéen a ko am wala opinion sénégalais ngeen wax. mais ñun journaliste sénégalais lañu. waaw moo tax ma lay laaj tontu kon sénégalais la. donc je pense que ni question bi est-ce que ko def fee divers sur internet gars yëpp dugal di wax seen xalaat mais man sama sama point de vue ci cas boobu je préfère garder ko pour mm-hmm. ah, parce que ku ci nekk yaa ngi ak sa opinion am na ñoo xam ne dañ koy garder am na ñoo xam ne dañ koy wax mm-hmm. man sama sama droit ko moom. donc mais Euh, bu xëccee ku mel ni Ndeye Ndiaye Banaya indi ko fi nga xamante ni moom mooy Ramadan njàpp tamit gis nañu euh, soirée bi nga xam ne Sidi Diop def na ko faay démb jotul ñëw dinañ si ñëw mais le fait euh, nga xam en tout cas suñu patron daal c'est un homme mm-hmm. xam teraanga la ku mën teraanga la ku bëgg teraanga la te ku mën a teral nit la mm-hmm. te ñun ñu ànd ak ñoom nag yàlla ñun ñu ànd ak moom yàlla def nañu ñeewuñu quiconque bureaucrate bi toog di fayee ko ay huit cent mille ñëw donc ku baax ñëpp bëgg la ku baax ñëpp bëgg ànd ak yow. donc peut-être noonu rek li may waxoon rek depuis le début ku bokk bukki xaj daf lay boobu par force. opinion nit ñi nag mën nañu ko tere aussi. Eh, da ngeen bëgg a wax ne quand même euh, ah, wax fii léegi lan laa wax. nga ne ñeewoo leen kenn. waaw ñun nga ne diw dañ ñoo ñeew. ah Ndeye yaay ñëw. ñëw na. waaw ñëw na bienvenue moom loolu gis ñëpp gis nañ ko. mais ñëw bi mu ñëw daf fekk bu neex ndayu mbi gi voilà ah loolu de kon nag est-ce que yor nga numéro Ndeye Ndiaye war ma jox la ko day jaay bànneex ñoom ñoo ñee tamit euh, waa suba teel. ñoom ñooy xëcc jële foofu di yóbbu. à la fin nag yéen a ngi posé question seen biir est-ce que. yow laa a tamit waa teel parce que yéen yéen a yoroot foofu di indi ci yéen tamit. ah de manifesté guñ ko ma koy gis nag ah, ñi may de manifesté guñ ko wax dëgg fa yàlla ma leen. ngeen tuur ko xaalis boo xam ne peut-être jàpp na su koo jàpp loolu lépp. waaw léegi ma laaj leen. sénégalais yaa ngi gis man maa ngi toog yéen ak ma teg micro bi. kan moo mës a ñëw suñu scène te këpp ñu ko xaalis. mais bu keroog dafa ëpp. waaw mais si non non bul ne bul ne bul ne bul ne bu keroog dafa ëpp. wallahi li anzim nit yéeg na sur scène waa li takk 5 millions bu takk ni jox ko. mais à mais wala lu ëpp loolu. wala mu ne ko may naa la oto yëkkati oto may ko ko. wala mu yëkkati leneen il faut que ñu ne mën a ma. waaw mais donc où est le problème njàpp du ma ne lakkam la doomam la mu war koo may may ko donc où est le problème là-dessus gis ñu problème bala boog dañu bëggoon bañ ko may mais buñ bañ ko koy bindal ni carrément war ko may parce que gis na ni kàddu euh, yi dafa am mhm. mu yëkkatiwaat xaalis bu mel noonu joxe ko ñu bëri dafa bëgg coow li gën a continuer non man gisoo ma ko noonu man gisoo ko noonu damay xam ne damay wax ne sénégalais ñoo ko interprété noonu rek dëgg fa yàlla en plus man coow bi ñuy wax coow coow mu fi wallahi lazim mhm. barki Serigne Saliou coow mu fi génn fan fu ñu génn fan lañu wax ah yéen ñu def sorti ci yéen bëri dak jërëjëf futi Omar Cheikh ni taxaw bi ma ñëwee fii ne tël gis leen tam bi tëf la def <laughs> ndax yéen am na ko dégg na li ma ko wax mais nag ay doomu adama la ñu mhm. te yéen it ay doomu aadama ngeen da ngeen def seen liggéey am déet nit ñi bari nañ bu ñu ma wooyee teg ma micro bi parce que am na benn démarquage bu ndaw bu nekk ci man donc amuma droit ngeen ñëw tàllal micro ma jàll leen ma jàll leen wala ma wax leen bu ma ko defee damay matadil sa bopp mhm. parce que gënuma leen gënu leen ma donc nekk dañoo bëgg wax di wax rek fu ñu taxaw di wax jàppal ni dañ ñoo ñaan wala ñu ñëw fekk ñu taxaw ñu bett ñu tàllal ñu micro wallahi azim mën naa waat ni wax bi ñi génn ñu di débat yi ñuy débat sax jaru ko woon te man ñëwuma fi woon pour lii. Euh, gis nañu euh, démb Sidi Diop bi mu tëggee faay mel ni jàpp ñëwul te askan wi yëpp ñu ngi naa ko fa xaar jàppoon ni euh, dinañ ko fa seen waaye gisuñu ko fa am ñenn ñu nga xam ne ñu ngi wax ni yéen ko yóbbee li ko dal parce que peut-être ñu bëree bëri woo nañ mais jàpp ñëwul ko yóbbee waa léegi ba en tout cas ñàpp ñëw nag ñëw. Mhm. Mm. waaw très bien jërëjëf kaay ba dimbale leen rek ci lu bari. Ramdan li ngi rëy rëy man Paa Waly maa fa gën a nekk xale. El Poto mi mën na ma seede ñoo moom mag ñoo fa nekk njëkk ma fa jamono coon sekk ba léegi. je pense que ni man ñooñu lu ñu génnul leeral man mënu ma la ko reer ci mbir bi mm-hmm. man maa ngi ci biir Ramdan mais y a des yoo xam ni. samay opinion man personnellement je préfère la garder pour moi xamul tax parce que jamono ji dafa toll foo xam ne dañuy dafa naqaree wax Sénégal moo naqaree wax te aussi kenn moom kenn juróoma kër jënd ma fi ma neex laay waxee ma neex du ma fa waxee par respect nag taxaw naa di waxtaan ak yéen dañuy waxtaan dëggantaan échanger mais lépp lu ma leen génne fii man jàppale du ma fabriqué jàppale du ma daw li ma li ma xam laay wax li ma maîtriser wul maîtriser wu ma ko. dans ce cas li ñuy wax nii di ko interpréter gi wallahi azim barki Serigne Saliou ñi ma xam-xam nañu ma.

convocation bi kan lañ ko jox waaw ah, kon kay ñoom ñëpp lañ ko jox mais joxuñu ko waaramtaan je pense que ne loolu quelque chose qui ne nous concerne pas on doit pas discuter là-dessus li ma ci mën a wax ci gàttal pour ne pas dire lenn lu ma nit di xeebee mooy lépp lu am ci ci àddina rek dañ ko waxtaanee alam yàlla vraiment parce que tamit lu am gars yi dañ naan waaram daan waaram daan waaram non non non demewul noonu de opinion nit ñi moom ku ne mën nga jox sa opinion mu la neexee mais cas bi may wax nii billahi wallahi wa taala bi ma añee ba pare tëdd sama kaw lal la sama jabar di fuir ba wan ma ma ne ko nu mu demee nii parce que man yëgu ma ko wallahi lan si ma ne ko ah mu demee nii ma xool ah jox ko tamit ne ko ah mënut a ci showbiz la bokk parce que nañu waxante dëgg man mënu ma cee joxe sama opinion wala ma joxe ci sama xalaat bañ ba ñu exécuté ko wala ñu ne tu as raison fait divers la comme fait divers yëpp ku nekk da nga koy recevoir analyser ko ni ko bëgg analyser donc ku ci nekk sa analyse nag

man lañ maa jël foofu pour may liggéey ki may liggéey ki may liggéey li sama patron li mu bëgg loolu la ñuy def di biir ndam daan ki fay dugg ak fi génn moom moo ko moom décision bu benn décision la tax Wally Ballago Seck moo koy jël don je pense que ni question boobu c' est pas à ko war a sama bëgg-bëgg compté wul ci foofu noonu parce que xam nga lan la je suis employé kenn du doon employé Omar Seck mii kenn du ko fekk ci place boo xam ne moo ko ñàkk sanc ko nga ngay tracé sa bëgg-bëgg pour est ce que bi noonu li mu bëgg moom loolu ngay topp donc je pense que question boobu si ki gën a mieux placé pour répondre mooy Wally Ballago Seck. d'accord jaajëf Pape Waly. maa ngi leen di jaajëfal yal na leen yàlla sàmm. am leen bu baax a baax a baax.